ba gis gisuñu kenn. ah na waar. metti na de wiiri nañ koñ bu nekk gauche droite xanaa lu dem milieu ba xam dina tane. ko ay fii sa papa dañoo fiy loo ci xamul mais dund tubaab la ñuy dund ñoom daal du ñu génn sax taxawaalu seen buntu kër yi pour nit mën kon garmi yi fii lañ dëkk séeri nan leen sa papa ñoo fi nekk loolu la wax di ko mën a tey moom duñ ci namm dara te lu ma ci bañu doo ko ci bañ julli gi jot na ba pare daa mel ne am na ko ma seen de biasa ji nii banque kii wër ba fajar dem tëdd gëm naa la nee naa dama koy fël tëlaale sàndeeku lal basak daal di julli ñaari raax te de nga la nañ dem nañ dem Ça va ça va bien. Oui oui, nickel on est là. daa mel da ah, donc euh, on en profite pour prendre un peu d'air là. ok en fait nous sommes dañu ici cité pour xool ba xam cher appartement bon ça dépend exactement de lan ngeen bëgg ban genre d'appartement. maman rez de rez de c'est bon. rez-de-chaussée deux chambres plus salon. Deux chambres plus salon, puis on loue ça à 200 000. 200 000 Oui. Ok, c'est bon. 200 000 Est-ce que mon ami Oui, si vous voulez. Après, mon de faire la. Ah, merci. trop mignon. mignon trop merci. Merci. Mais copine bul diw dara ben diw nak bu yak sa tan dégg yeen ya sen couple dafa rafet trop yak sama copine bi sa rew fi de appartement non de bon alentour yi yëpp am na appartement ni néew sa numéro mën naa ko am sa mon numéro quoi faire ya, exactement sen couple dafa nay sen ya du dara nak waaye xam nga rek ku bax mom duñ ko rombu non te jox numéro dal ñu mëna na ak yow dafa bax trop

soxna si laa wax nga bëgg ma yow sank ba tay ba nga ma toppee ba tay aw nañ góos aw durat dem milier kañ gis kenn mu taxaw ma ñew di ko ba ma ak yow. tay mom dalo ci baaxul. ah ah kiiru rek nga yoré nga top ma rek xanaa suma foré sax nga for waye man samay for nga taxaw di melni koy sétantel buñ waxé nga yëngal sa bop melni koy jangé ara wax mu naan ni charme du mo des. charme da mën a weesu julli gi ah mu ngi taxaw ba tay do reer la la wax tay xana ñu jënd ci rek meew rek wala ñu xoyal biscuit. Hmm. yàgg nga ko dundé waye man duma nitu biscuit ak